gannaaw nuyoo bi ak ziyaara bi ñu ngi leen di ndokkeel ci weer wu tedd wi ak ci barab bu tedd bi ñu nekk di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu nangul nu sunuy koor nangul nu sunuy julli ak sunuy naafila yépp ak mboolem jëf yu baax yi nga xam ne ñu ngi koy jéem a jëf ci koor gi te mu taw feexal nu ba nu mottali weer wi ni nu ko tàmbalee woon ci ak wér ak ci tawféex ñu mottalee ko noonu noonu la dañuy ñaanee sunu borom mu dolli aw fan gudd lool ak wér gu mat lool ak jàmm ju mat lool ak tawfiq ki nga xam ne mooy suñu kilifa ci yoon wi di Cheikh Mouhamadou Mountakha ba mu mott di yéeneen yëpp yim am ci diini ji am ko ci yoon wi te ñu ànd ko ak moom yëpp innahu waliyu tawfiq wa bil ijabati jadir ñu yeesal sunu cant tam ak sunu mbégte ci daairatu muqaddamatul xidma ci teral gi ñu teral boole ñu ci liggéey bu màgg bii liggéey bu màgg bi nga xam ne yàgg nañ koo taxawee ñoom ak nun ngir teral weer wii nga xam ne mooy weeru ramadaan bu tedd wii waaye teral ko teraangay ruux waaye teral ko teraangay yaram kon taxawaay boobu nga xam ne yàgg nañ ci lool muy bu am solo boole gi ñu ci boole ñu ngi ci sant bu baax te di ci am mbégte di ñaan sunu borom tabaraka wa taala liñ ciy def lépp ci ay jëf ñi ci participer ñëpp ñi ci jëf ñëpp sunu borom nangu ba ñu am ci ndigal am ci ngërëmal ki nga xam ne moom lañ koy liggéeyal muy Cheikhul Xadim radiyallahu taala waxtaan tey nag dafa jëm rek ci tomb bii nga xam ne moom la sëriñ Asan wax léegi muy ishaatul faaxisha wa adraaruha ala alfardi wal mujtama wala wa xataruha ala alfardi wal mujtama mooy siiwal wax ju bon walla jëf ju bon ak lor yi nga xam ne am na ko ci nit ñi ak ci mbooloo mi noonu mu ko waxee nag dafa tomb la boo xam ne buñ ne siiwal rek ku ne xam na ne jumtukaayu siiwal daal day dugg te jumtukaayu siiwal àgg na ci jamono foo xam ne ci ak avancé lépp lu ci nit bëgg rek daanaka mën na ko ci def jàpp ne tomb la boo xam ne soxal na wala war naa soxal képp koo xam ne mbirum xeet wi utel na la ak texeen àdduna ak alaaxira it itteel na la ndax bu la loolu itteelee dangay xam ne texe googu ñu bëggal xeet bi kenn ku ne bëggal ko ko dafa am lu ko takke lool ak tomb bi lu ko takke lool ak tomb bi moo tax daayira bi tànn ko ngir ñu laa bii ren leen daay bii ren leen ci lu suñu kem kattan ak lu waxtu yu maye suñu ci génnee man cee jariñu man cee jariñe kon ni ñuy tàmbalee waxtaan bi rekk ci xam ne sunu borom tabaraka wa taala moo bind doomu aadama rafetal ko bind lool melal ko rafetal aw meloom lool laqad xalaqna al insaana fi axsani taqwiim am ko melalee ba noppi nag defal ko ay cër defal ko ay cër yu muy jëfandikoo ay nopp yu muy déggee ay bët yu muy gisee aw làmmiñ bu muy tudde waaye ab loxo bu muy jottali ko ab tànk ay tànk yu muy doxe xéewal yooyu yëpp nag ci xéewal yàlla yi yu tuuti la ci yeneen xéewal yi nga xam ne kenn mënu koo lim kenn mënu koo dajal wa in tauddu nicmatallahi laa tuxsuuha su ngeen doon xee lim xéewal yàlla yi mu leen defal lu ngeen lim lim lu ngeen jeexal lu ngeen lim lim rek du ngeen jeexal ndax loolu rek yenn xéewal la muy cër yi mu lay bindal nga di ko jëfandikoo ci say soxla loolu rek doyoon na sëkk ak cant waxuma laa nag yeneen xéewal yi nga xam ne moo moo moo moom la defal ñu xam ne it nag li war ci xéewal yooyu cantam moo jëfandikoo ko sant ci sunu borom tabaraka wa taala sant ko ci bañ koo weddi waaye fàttali ko ci bañ koo fàtte sunu borom nee na bi ngeen fii ñëw di wàcc ci suuf si indaale leen dara maa leen bind ngeen génnee ci seeni wayjur andaale wu leen dara ma defal leen ab ay dégg defal leen ab gis defal leen am xel waaye lu tax loolu lépp ma def ko muy laallakum tashkuruun ngir ngeen sant ma rek ngeen sant ma rek te cant li ci gën a yéeme mooy sunu borom yërmandeem ak xéewalam dafa rëy ci nit ki ba ëpp ndax loolu lépp nee na dama la ko defal ngir nga sant ma waaye boo ma santee ba noppi dama lay dolliwaat moo tax kenn mënut a sant yàlla kenn munu koo sant ndax bu la defalee xéewal ba nga sant ko mu dolli la da koy santaat boo ko santaatee mu dolli waat la nga santaat loolu nag day continuer li di kon yàlla kenn mënu koo sant xanaa daf lay jagleel moo tax gis nga sëñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu rum naa sukuural la si lay wax rum naa maanaam ko damay sant mais damay koo sant day mel day saraxu yàlla sarax ma ma sant la sarax ma sant la kon cant yàlla foofu la toll nekkul lu ndaw nekkul lu rëy nekkul lu tuuti ndax yombut ndax la in shakartum na azidannakum su ma leen defalee xéewal sant leen ma waaye su ngeen ma santee ma dolli leen ndollan loola cant da cay waraat bu ñëwaatee cant waraat ca bu ñëwaatee cant waraat naka noonu cant yàlla nag bari nañu koy waxtaanee dañuy sant dañuy sant dañuy sant waaye cant du dara lu may xéewal gi yàlla may ba nga ji ko sant nga def ko ci li bëgg gi yàlla may lu mën a doon alal la daraja la leneen loolu lépp nga fab ko delloowaat ko ci la tax yàlla may la ko loolu rek mooy cat nga delloo ko ci li tax yàlla may la ko bu ko defee bu dee cër yi la yàlla daf la ko may danga ko ciy cant danga koy delloo ci li yàlla bëgg ci cër yi nga def ko ci li yàlla bëgg nga xool ko nga xool ko li yàlla bëgg nga laal ko nga laal ko fi yàlla bëgg nga dem fa nga dem fa li yàlla bëgg nga dégg ko nga dégg soo defut loolu rek sëntoo yàlla ci say cër ak loo mën di wax na kon jëfandikoo ko ci li gërëmloo yàlla te bañ koo jëfandikoo ci li koy merloo ndax soo ko jëfandikoo ci li koy bégloo mu tàbbal la ci àjjana te mënoon naa ñàkk ndax moo la ko defal nga sant ko ci rek soo ko defee ci lu ko wut mu tàbbal la sawara loolu rek wane na ne cantuk xéewal mi ngi dellu ci jëfandikoo ko ci li gërëmloo yàlla li yàlla bëgg la yàlla lu mu la defal rek am na lu bëgg nga defal ko ko ci sant ko nag mooy defal ko lam bëgg ca lam la defal loolu rek mooy sant yàlla Sëñ Tuubaa radiyallaahu taala anhu wax na ko ci maxaaliqu niiraan ne na na ngeen wattu seen cër yi wal taxfasul aadaa batnun wa lisaan farjun wa rijlaani wa aynaani yadaan saabiha usnaani man la aaraha anil maasi kulliha an yantafia nee seen cër yi leen yàlla bindal muy juróom-ñaar na ko sàmm bu baax a baax a baax ba ci njëkk mooy biir bi bu ci def lu neexul yàlla mukk làmmiñ wi bu ci tudd lu neexul yàlla mukk pay bi bu ci def lu neexul yàlla mukk tànk yi bu ci dox lu neexul yàlla bët yi bu ci xool lu neexul yàlla loxo yi bu ci laal lu neexul yàlla nopp yi bu ci déglu lu neexul yàlla nee na képp koo xam ne sàmm nga yii rek da nga jariñ daal ñuy leralaat tam ci biir loolu néew cër yooyu kat benn bu juróom-ñaari cër la juróom-ñaari cër la cër boo ci mooy yàlla dafa janloo benn bunt ci sawar bu cër bu ne dafa am benn bunt bu mu janloo ci sawar soo mooyee yàlla ci cër boobu cër boobu moo lay dugal sawar am na bunt bu jàkkaarlook loxo boo mooyee yàlla ci loxo ba ci buntu sawara boobee ngay dugg am na bu janloog tànk am na bu janloog bët am na bu janloog let yépp benn bu ci nekk am na bunt bu mu janloo wa man yakun xaafisaha laa yadxulu baaban min albibaani fi yankul nee na soo watoo cër yëpp doo dugg benn ci buntu yooyu doo ci dugg yow da ngay mucc doo dugg benn cër boo fexe ba sa cër yëpp doo dugg waaye boo ca moyit wa man asal mawla bi odwin abada fa baabuha baabu azabihi xada boo ca moy nag bu yomal xeyabe ca boobu ngay duggee sawara ca boobu ngay duggee sawara kon doomu aadama dafa nekk responsable ci ay cëram te cër itam dañ koy seere ëllëg kenn ku ne ëllëg danañ la laaj cër yi ñu la joxoon loo ci jëfee waaye cër seen bopp yi danañ la seere ne la lii nga jëfee woon ci nun benn cër bu ne da nga seere ne lii lii nga jëfee woon ci nun wala taqfu ma laysa laka bi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'aada kullu ulaika kaana anhu mas'ula cër bu ne responsable ci yow mi ko jox waaye dalu seen cër danañ leen seere yowmal xiyaam bu yowmal xiyaamee làmmiñ du wax ne loxo def na nangam tànk du wax ne loxo def na nangam waaye làmmiñ day wax lim def moom loxo jóg wax lim def ak fam demoon ak lam laaloon tànk wax fam demoon bët wax lam gisoon nopp wax lam déggoon ñoom ñëpp day mel ni jëmm ji dañ koy def ñaar cër ya taxaw fële nit ki taxaw fële ñoom ñuy wax di ko seere ne yaa yaa defoon nangam ci man yaa defoon nangam ci man yaa defoon nangam ci man yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa arjihim wa aydihim wa arjuluhum bima kaanu yamaluun qaalu antaqana allahu alladi antaqa kulla shay li ma shahidtum alayna bu ko defee nga taxaw foofa naan lu tax ngeen di ma seere lu tax ngeen di ma seere seere yu ñaaw yi lu tax ngeen di ma seere seere yu ñaaw yi mu ne antaqana allahu alladi antaqa kulla shay yàlla mi tuddloo ñëpp waxloo ñëpp moo ñu waxloo tey faw ñu seeral boobu loolu mën naa xalaat bu baax a baax a baax ci doomu aadama boo xam ne am nga ak yéeg cër yooyu nag yépp am solo yépp am solo waaye ba ca gën a am solo gën caa bari danger gën caa am lor mooy làmmiñ làmmiñ bi làmmiñ làmmiñ wax moo ci gën a am danger ndax lu ndaw la ci gis yaa ngi ko jot sa biir mu tax lool nga di ko xool waaye nag lu màgg la loo xam ne mënees na cee amee ajjana mënees na cee amee safara ci làmmiñ képp am na ñuy wax naan yàlla du fay wax bàyyi jëf xam na waxin la waaye kay yàlla dana fay wax wax rek yàlla dana ko fay fay wax wa ma lana la numinu billahi wa ma jaana min alxaqi wa natmau an yudxilana rabbuna ma alqawmi salihin fa athaabahum allahu bima qaalu nee na ñii kat li leen tabal ajana ay wax yu war rafet yu ñu wax rek te gëm ko moo leen tabal ajana ay wax yu ñu wax fa asaabahum laahu bimaa qaalu li ñu wax la wax waaye am na ay wax juñ dugal sawara wa qaalat al yahudu yadullahi maglulatun gullat aydihim wa lu'inu bimaa qaalu yahud yi dañu yàlla daa nay yàlla neen déet déet yàlla nay déet yàlla na ngeen dee yéen yàlla na ngeen seen loxo yi damm dañuy yàlla yàlla dafa kotoñ kotoñ kotoñ loxo dafa kotoñ du joxe yàlla neen yéen la seen loxo kotoñ waaye wala ay nu bi ma qaalu li ngeen wax yàlla rëbb na leen ci dañ leen ci tabal sawara kon wax dugal na nit sawara waaye wax dugal na nit ajra am na solo torop fonk wax yonent bi nee na cër yi yëpp bu ñu xëyee dañuy muslu làmmiñ cër yëpp dañuy muslu làmmiñ di ko wax na ko ragalal yàlla ci nun su mbir yépp ci yow la aju waaw fa in istaqamta istaqamna wa in i'wajajta i'wajajna soo jubee rek ñun ñëpp ñu jub soo jaaree yoon rek ñun ñëpp ñu jaar yoon soo jaarul yoon soo dëngee ñun ñëpp ñu dëng day mel ni moom moo leen ilif soo xëyee mën a mën a mën a sàmm saw làmmiñ suba ba ngoon doo ci wax loo ci wëtt wax mën ngaa mën ngaa mën ngaa dogg ci ne sa cër yi ci des yëpp it danañ def li ñu war a def waaye su làmmiñ ñu defee leneen rek cër yëpp danañ jàdd def leneen kon loolu wane na ne làmmiñ lu am solo la ndax loo xam ne bu doxee rek cër yi dox waaye bu doxul cër yi du dox loolu lu mat sàmm la te loo ci def lu mu tuuti tuuti dañ la koy isaab ëllëg dañ koy konteel régler la ko ëllëg ci làmmiñ maa yalfisu min qawlin illa ladayhi raqibun atid yàlla nee na amul benn baat booy wax mu génnee ci sa gémmiñ gi lu dul am na ñaar ñu taxaw di ko bind raqib ak atid baat boo wax rek lu génn ci sa làmmiñ rek am na ñu bind yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxaat nañu beneen addis boo xam ne moom wane na solos làmmiñ mu ne nit a ngi nii day dana wax benn baat génn ko ci làmmiñam bu ndaw waaye dana ca amee ngërëmal yàlla loo xam ne kenn xamut nu muy toll ay darajaat yu mag la ko ci yàlla may ci benn wax bu mu wax rek bayiwu ci xel sax bi mu koy wax waaye tedd na rafet na jekk na yàlla may ko ci ay darajaat yoo xam ne amut fu mu yem waaye beneen waaye dana wax ci làmmiñam benn baat kepp bu ñaaw bàyyiwu ca xel ba mu koy wax bàyyiwu ca xel laa yalqaa laha baalan bàyyiwu ca xel de wax na ko ba noppi jàpp ne waxul dara waaw yahwa bihi fii jahannama abada ma bayna al-mashriq wal maghrib nee na yàlla dana ko ci sànni sawara lu toll ni diggante penku ak sow penku ak sow ci gis rek ni mu soree ñu sànni la ci sawara bala ngaa àgg fa nga jëm dana toll ni diggante penku ak sow ci benn baat boo xam ne génn nga ko ci salaam yi war nañu wattandiku bu baax a baax a baax a baax ci benn baat boo xam ne sax yow mi ko wax sax defoo ci attention bàyyiwoo ci xel muy bu baax mu yóbbu la fee muy bu bon gis nga fi mu la yóbbu yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxaat nañu beneen addis nañu yéen ñëpp de képp ku ma warlul li nekk ci diggante ñaari ngaamam yii muy muy muy muy muy làmmiñam bii ak li nekk ci diggante ñaari tànkam yii muy pëyam képp ku ma warlul yooyu ne ma danaa ci def li ma ci war a def at manu lahul jann ma warlul la ajjan ñaar yii rek sa làmmiñ sa pëy bu fekkee war nga nga doo ci def lenn loo ci war a def danaa la warul àjjana man yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na benn benn saxaaba bu ñuy wax Muaas ibnu Jabal Muaas ibnu Jabal dafa dikk ne yonent bi yow na yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax yàlla dana danoonu jàppee suñ waxe wax waxe yi wax wax wax yi ñuy wax rek di waxantu noonu rek di waxantu ndax yàlla danañu ko jàppee ne ko Muaas ya ya ya day def na ko yàlla nga dee maas daal yaa yaa doy waar maanaam mel ni ku koy ñaan yàlla hal yakubu naas naasa ay hal yakubu naasa ala naari fi fi wujuhihim illa xasaidu alsinatihim yow maas da ngaa defe ne nit ñi boo demee yowmal xiyaam fekk leen ci biir sawara ñuy tëmb tëmb ci biir sawara la leen fa yóbbu du dara lu dul seen làmmiñ bi seen cati làmmiñ ñu ëpp ci nit ñi boo leen fekkee sawara boo leen laajee loo leen fi indi seen làmmiñ moo leen fi indi seen làmmiñ képp moo leen fi indi texte yooyu nu suus yooyu yépp li muy wane mooy am solo gu làmmiñ am solo ak danger gum danger ak war guñ ko war a wattu nag ci lépp loo xam ne mooy yàlla la jëw ak rambaaj ak saaga xasteeg yépp ci yi nga xam ne yàlla da ko araamal te tëkkoo ci tëkk yu baree baree bare yooyu mu tudd yépp ay wax la waaye bu ci nekk yàlla tëkku na ca ku ko def tëkku goo xam ne ku ko xam te gëm ko loo ko def ku ko xam te gëm ko doo ko def kon làmmiñ noonu la amee solo boo demee ca mu jawaru nafis sëñ Tuubaa nga koy feddliwaat wa xifsuhu lisaana min faxshaai wa min qabili alqawli walmiraai nee na bokk na ci yi war ci doomu aadama mu kallaf bu dekkee mu kallaf li ko war bokk na ci wattu aw làmmiñam ci wax ju bon ak jëf ju bon wax ju bon wax ju bon daanaka lan mooy wax ju bon mu ne la xaqiqatul qawli al qabiixi kullama takunu min usa ayahin faalama wax joo xam ne fu ñu ko tuddee ñëpp sëgg ku ko wax rek xam nga ne wax ju bon wax ju bokk na ci li koy tegtale mooy yow mi ko wax sax da ngay rus waaye ñi ngi koy waxal ñoo lay gën a rus lépp lu mel noonu rek xamal ne wax ju bon baaxul lépp loo xam ne boo ko waxee yow xam nga yow boo rusee xam nga boo rusus xam nga nit ñi nga jàkkaar loolu ñoom xam nga xam nañ rus nañ wala rusuñu ci baat boo xam ne génn nga wut sigg bi leen lépp lu mel noonu rek loolu wax ju bon kon yooyu yëpp wane na solo goo xam ne làmmiñ am na ko solo ci mën a defar dara mën a defar nit ba yóbbu ko àjjana waaye mën a defar mën a yàq nit ba yóbbu ko sawara ci làmmiñ la kon loolu mooy importance su làmmiñ bu ñu xamee importance su làmmiñ nag li ñuy waxtaane tey day daal di feeñ foofu da mooy ishaatul faaxisha mooy tasaare lu rak lu ñaaw ci sa làmmiñ tasaare lu ñaaw bari na waaye li ñuy waxtaane tey mooy tasaare lu ñaaw ci sa làmmiñ wax wax ju ñaaw ci sa làmmiñ moom moom ishaatul faaxisha boobu nag muy tasaare lu ñaaw dafa nekk benn phénomène wala benn benn mbir moo xam ne dafa tasaaroo ci nii tasaaroo boo xam ne kenn xamul fu mu àgg ndax li sëñ da nga waxul léegi maanaam nit ñi dañoo am ay waxukaay te amuñu lu wax ñuy waxantu loolu mooy li xew am nañuy waxukaay xamuñu lu ñuy wax ñëpp yi waxantu ku ne toog ci sa diine rek di waxantu di waxantu waxantu te waxantu googee nga ne du dara te gis nga loolu yonent bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam maanaam nga génn ci sa làmmiñ benn baat def ko ab audio sànni ko defe ne du dara mu sànni la ci biir sawar sànni la ci biir sawar dafa dem ba <coughs> wax ju ñaaw jooju sax di ko di ko tasaare dafa dem ba nekk ab commerce commerce la léegi am na ñoo xam ne dañuy tijji seeni euh, kii groupe wala wasaayil yooyu ñuy jëfandikoo yépp dañ koy tijji luñ cay def wax ca lu ñaaw ndax nit ñi boo waxee lu ñaaw lañ lay gën a diglu loolu responsabilité bu rëy la ñun ñëpp dañuy wax naan diw sangam ab saagakat la diw sangam ab waxkat lu bon la diw sangam ab waxkat lu bon la lu tax mu di ko wax mais boo xoolee fa mu koy waxee ay junni junni junni ñoo koy diglu ñoo koy seetaan looloo ñu ko def bu fekkoon wax lu ñaaw ku ko seetaan daal ne ko karek mu yem fa bu ëllëgee ka ko waxoon xam ne kenn digluwu ko du ko waxaat waaye bu waxee ay junni junni ñoo koy diglu mu ne kon man li may wax saf la nit ñi te nit ñi kat moom rek la ñuy wax diw sàngam saagakat la fekk ñun ñëpp ay saagakat lañ ndax ñun ñëpp a koy déglu ñun ñu koy déglu ñëpp ay saagakat lañ ñëpp kon am na ñu ko def ak commerce bëgg a siiw bëgg daraja wala politique yóbbu leen ci wala économie yóbbu leen ci loolu lépp nit ñi dañ koy jëfandikoo dañuy jëfandikoo wax ju ñaaw ngir daggu njariñ yooyu ay junni junni di leen déglu di leen seetaan ci wasaayil yooyu nga xam ne ñoo koy moom lañ moom lañ koy jëfandikoo kon faw ñu def autocritique ci suñu bopp suñ gisee kuy wax lu bon ñun ñëpp ñu di ko xas waaye nun ñi koy diglu ñi ngi wax lu bon ñun ñi koy diglu ñi ngi wax lu bon loolu war na danañ àgg feneen foo xam ne yonent bi sallallahu alayhi dana fa wax loolu ci kuy wax lu bon ak ku koy siiwal ki koy siiwal mooy ki koy diglu rek ki koy diglu am na ñoo xam ne dañ koy diglu ba tasaare tasaarewaat waaye ku ku wax lu bon ku ko diglu rek ànd na ak moom ci lam def yow kon làmmiñ foofu la nekk ci lor ju mën a lor doomu aadama ak danger du danger bu ñu nee ishaatul faaxisha nag ishaa mooy tasaare dara tasaare wasaare dara siiwal ko ak lu mën a doon mën naa doon lu baax mën naa doon lu bon siiwal rek tasaare mooy isha batu isha loolu la teg waaye buñ ko buñ ko xoolee nag ci biir nag mooy xabaar bu wérul xabaar bu wérul boo xam ne amul cëslaay delluwul fenn boo laajee ka ko wax mu ne la dégg naa nee nañ dégg naa nee nañ rek la wax waaye du la wax fenn fu mu ko jëlee xabarun makzuub xayru mawsuuqun fii kenn du ko sukkandiku nga di ko tasaare ci nit ñi loolu mooy isha baatu isha loolu lay firi waaw bu dee faaxisa nag li ca gën a gàtt rek mooy lépp loo xam ne lu ñaaw la ci ay wax ak jëf kullu ma azuma qubhu lu ñaaw lu rëy moo xam ay wax la moo xam ay jëf la xam ay wax la moo xam ay jëf lu ñaaw lu rëy waxuma lu ñaaw lu ndaw sax waaye lu ñaaw lu rëy ci ay wax ak ay jëf loolu mooy ishaa kon boo ko dajalee ne ishaa mooy siiwal alfaaxisha mooy wax ju ñaaw wala jëf ju ñaaw dana ishaatul faaxisha nga boole ko mooy tasaare siiwal wax ju ñaaw ak jëf ju ñaaw ci sharia sharia nag mooy atte foofu wax ji ñaaw na sharia moo koy wax wax ji rafet na sharia moo koy wax jëf jii ñaaw na jëf jii rafet na sharia moo koy wax kon lépp loo xam ne sharia ñaawlu na ko ci wax ak i jëf ku koy siiwal di ko tasaare yaa ngi def ishaatul faaxisha yaa ngi def ishaatul faaxisha bu ñu ko xoolee nag day mel ni alxuraan ni mu ko jàngalee moom ishaatul faaxisha day mel ni ñaari xaaj la faaxisha ci boppam ñaari ñaari xaaj la ñaari xeet la faaxisha zahira ak faaxisha boo xam ne baatina la faaxisha zahira mooy ñaaw téef bu feeñ bi nga xam ne cër yee koy def cër yi ñoo koy def ñaaw téef boo xam ne bu feeñ la cër yee koy def mel ni njaaloo mel ni jëfee jëfi waa Luut tuumaal nit wax ju bon lépp ay ci koy def làmmiñ weer yooyu ñoo koy def waaye am na yeneen ñaawteef yoo xam ne xol a koy def al kibr wal riya wal xasad ak yu mel noonu ak ñoo lépp ay jëf la yu ñaaw yoo xam ne wala ay wax yu ñaaw yoo xam ne nit a koy def waaye xolam la koy defee yi muy defee ci xolam moom la ñu tuddee al fawaaxis al zahira ba léegi tuddee ko aw fawaaxish al baatil ñaaw ñaaw yi nga xam ne yu biir la ak ñaaw ñaaw yi nga xam yu la yu biir yu bitti yi mooy yi ñëpp yi gis nga di ko def yu biir yi nag mooy yi nga xam ne ci sa biir la nekk yow te moo gën a danger sax far parce que ñu bari duñ ko yëg bari duñ ko yëg qul innama xarama rabbi wal fawaxisha ma zahara minha wa ma batan yàlla neen araamal naa fawaxisha yëpp yu ñaaw yëpp araamal naa ko ya feeñ ak ya ca mooy yooyu ñu wax yi ca feeñ ak yi ca nëbb moom baatu faaxisa boobu nag muy ñaawteef dafa rot ci alxuraan lu bari ay yoon yu bari bari lool ay fukki fukk la rot na ko ci alxuraan baatu faaxisa wala fawaaxis wala lu ca lu ca lu ca tukkee lu ca jugee am na fa muy yorot foo xam ne maasiya la fay firi maasiya inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar julli bu sellee mel na ma war a mel day dox nit day dox diggante nit ki ak mooy yàlla mooy yàlla kuy julli te di ko sellal doo mën a mooy yàlla danaa ko wax toujours ne ñu baree bari duñ def attention ci loolu dañuy wax ne julli guñ nangu kenn xamu ko yàllaa ko xam ah kay julli guñ nangu xam nañ ko jullit bu la bu doxee sa diggante ak mooy yàlla rek nangu nañ bu yàlla nangu nañ kon baat boobu dana firi mooy yàlla ci ci alxuraan dana firi itam njaaloo te mooy li ëpp muy ñëw ci alquran loolu lay firi loolu lay firi wallaati yatina alfaxishata min nisaikum fastashhidu alayhinna arbaatan minkum ak yeneen ay yu bari yoo xam ne faaxisha bi njaaloo lay firi foofu am feneen fu muy fi ñëwee fokk na day firi jëfi waa lóot xawmu lóot yoon si yàlla lóot waa jëf ci bon jawaa kara bi ñu doon jëf di ko defante ci seen biir jëf ju bon joojee moom it dana faaxisha dana ñëw tudd ko tudd noonu wal wutan id qaala li qawmihi atatuuna alfaaxishata ma sabaqakum biha min ahadin alaalamin yàlla nee na luut mu waxee nit ñi nitam nañ ne leen yéen a def lu bono bono loo xam ne day kenn mus leen cee jiitu kenn ku yàlla bind rek mus def lu bon lii di def booba nag lu bon loolee nag faaxisa la ko tuddee moom alxuraan dana ñëw tam ci beneen yoon faaxisa ñu ko jigéen ju fay jigéen ju fay rek bàyyi këram dem ngir mer danañ ko tuddee faaxisa waaw wala taxduluhunna li tadhabu bi baadi ma ataytumuhunna illa an yatina bi faaxisatin mubayina fay dana tudd noonu waaye dana wax ju bon rek wax ju wax ju bon rek faaxisa dana ko tudd lépp wax ju bon ci ay lépp lu wax ju bon qul innama xarama rabbiyal fawaaxisa ma zahara minha wa ma batan yooyu ñu waxoon wax ju bon mën naa firi loolu fawaaxisa boobu beneen beneen beneen tegtal tam lam yakuni nabiyu faaxisan wala mutafaxisan ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam nekkutoon ku ñaaw làmmiñ yonente bi nekkutoon ku ñaaw làmmiñ nekkutoon ku ku ñàkk kersa rafetu làmmiñ la woon lu baax rek la doon wax faahishan gis ko kon loolu mooy wax ju ñaaw laysa al muminu bi taani wala laani wala alfaaxishi wala albadi yonent bi saa sallam moo ko wax nee na ab ab ab ab ab ab ab julit dëgg dëgg dëgg ab julit dëgg dëgg du xaste ab xastekat du doon julit waaye ab julit dëgg dëgg aw làmmiñam du ñaaw ab julit dëgg dëgg du ñàkk kersa ñett yooyu nee na ab julit du ko def làmmiñ mu ñaaw mën a xaste ñàkk kersa ab jullit du ko def koo gis mu def ko rek yégal na ak gëmam jàlla manqué loolu nag suñ dee wax faaxisa fii nag loolu lañ ci jublu mooy wax ju ñaaw faaxisa firi yooyu yëpp dana ko firi waaye ci wax ji ñuy waxtaane ñun faaxisa moom la ñuy wax wax ju ñaaw fawaaxis ay wax yu ñaaw wala ay jëf yu ñaaw moom la firi foofu léegi nag lan mooy atteem yow mi ko def xam nga ko wala xamoo ko yàlla lu mu lu mu lu mu lu mu lu mu sàkk rek wutal na ko atte parce mu kàllaf noonu ngeen ko xamee atte atte yooyu lu ne rek daa war wala dañ koo sib wala dafa araam wala dañ koo daganal wala juróomi atte yi bu kàllaf yooyu nga xam ne jëf ju nekk rek am na faaxisha bi ishaatul faaxisha moom it am na atte ci lislaam ndax li tax sunu borom wutal ko ay atta yu toll noonu ak yu mettee noonu mooy dafa bëgg société bi ñuy dund ci ak déggoo ñun dañuy dund ci ak déggoo di dund ci jàmm di dund ci soppante waxante lu baax defante lu baax waaw te loolu du mën a am lu dul ne ku ne ci nun la ne ci moom da ko yéene moromam li nga bañ ku la ko wax da koy bañ a wax sa morom loolu mooy ak jullit li nga bañ nga xam ne bëggoo kenn wax la ko bëggoo kenn wax ko sa kenn yow it da nga koy bañ wax kenn bañ ko wax ko kenn jur dëgg dëgg noonu lay mel laa yuminu ahadukum xatta yuxiba li axihi maa yuxibu li nafsihi lislaam dafa dem ba dafa araamal sax lépp luy laal deru nit ki ak ay secret lépp loo xam ne làmmiñ mën na koo tudd luy ñaawal nit ki wala muy ñaawal daraam lislaam dafa araamal lool moo tax ñi ñi ñi ñi def seen liggéey muy loolu <coughs> ñu def seen liggéey muy loolu di di di wër di di yàq deri nit ñi di wër di yàq deri nit ñi di tasaare wax ju bon ci biir société bi gis nga leen yàlla wax inna alladina yuhibuuna an tachi alfahisha fi alladina amanu lahum azabun alimun fi dunya wal axira wax ju rëy la a ñiy dox ci biir société yi di tasaare wax ju bon di ko diffuser di ko euh, partager loolu partagé laa ko tuddee inna lazina yuhibbuna an tajal fahisha mooy ñiy partagé lu bon wax ju bon wala jëf ju bon ñu ko partagé ci biir jullit yi nee na lahum am nañ mbugal mu rëy mi ngi leen di xaar waaye azab du azab rek waaye azab <coughs> yàlla bu ne alim rek ëpp na mbugal mu metti maa ngi leen koy xaaree ëllëg waaye mbugal ma sax bu yem ci ëllëg waaye tey fi dunya wal axira képp koo xam ne da ngay siiwal lu bon di ko diffuser di ko partager yàlla nee na maa ngi lay xaaree mbugal mu bon mu metti ci àdduna ak ci àllaxira ci àdduna mbugal ma mooy bu doon lislaam day taxaw dañ lay xas ki nga ki nga wax wax ju ñaaw tuumaal ko loo xam ne njaaloo lay lay nuru dañ lay xas dañ lay dóor juróom-ñetti fukki yar yow mi ko def <coughs> dañ lay dóor juróom-ñetti fukki yar ci kanam mbooloo mépp ngir loolu nga def bu yomal xëyaamee nag fi dunia wal suñu borom tabaraka taala di la xaaree mbugalam moom di la xaaree mbugalam wallazina yarmuna al muxsanaat summa lam yaatu bi arbaati shuhada fajliduhum samanina jalda yàlla ko wax nit ñi nga xam ne dañuy yàq deri nit ñi te tëguñ ko fenn deri nit ñu baax ñi ñu di ko yàq te tëguñ ko fenn nee na da ngeen leen dóor juróom ñett fukki yar waaye bu leen ci yem rek waaye wala taqbalu lahum shahada abadan bu leen leen nangul sax seere matatuñ seere ku jikkowoo jikko ju mel noonu nee na mëtatoo seer wa ulaikumul fasiqun te ak faset la koo xam ne génn na ak topp kooku kon loolu lu metti la loo xam ne képp ku ko seetlu te gëm ko danga nga wattandiku siiwal lu ñaaw te aaya boobu mi ngi wàccoon ci ñi nga xam ne ñoo doon wax wax ju ñaaw ja ca na Aïcha radiyallahu taala anha soxna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam di tax nga xam ne doomu adama yàgg naa sikk doomu adama yàgg naa sikk ca yonent ba boobaak léegi junni at juróomi téeméer rek wala ñeent téeméer rek nanga yonent bi sallallahu alayhi wasallam ni mu teddee moom ay soxnaam ni ñu nit bon ba àgg ci di leen nit ak morom àgg foofu ca booba yàlla di wax yàlla di wàcc naan yonent bi ne ma ne yonent bi naan ah yàlla ko ana mu ne ah nit ñi ci boobu seenu mbon aggoon na ci ñi ñaaw njort di tuumaal soxna yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon loolu maanaam loolu rëy na goo xam ne dem na ba alquran di ci wàcc nga xam ne alquran dafa wàcc jógee ci asamaan wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi ngir naqarlu loolu ñu def bon gum bon ñaaw gum ñaaw alquran naqarlu ko ba wàcc ci ay aaya xam ne ba léegi ñu ngi koy jàng kuy julli timis bii bu la neexee jullee di ko jaamu yàlla loolu rëy suñu borom tabaraka wa taala kon faaxisa noonu la ko sunu borom tabaraka wa taala araamale te lépp loo xam ne jëf ko dafa araam wax ko dafa araam tasaare ko dafa araam lépp lu araam wax wala jëf ci nit ki mu def ko tasaare loola tam day topp loolu day araam waaye li gën a yéemu mooy ki def ñaawteef yi moom bu ko defee yam ci moom ñaawteef lu mu bon bon bon ak lu mu bon bon bon rek boo def jullit ñaawteef boo mën a def yamale ko ci sa bopp rek yàlla mën laa jéggal yàlla li jëntiwut loolu li nga def nëbbu ko yow rek yan ci loolu moom yàlla mën na la ko jéggal boo ko tubee waaw waaye nag li gën a garaaw nag mooy ki ko fab nag tasaare ko ki ko fab tasaare ko loolu moo mooy li gën a garaaw ndax ki ko fab tasaare ko diviser ko partager ko ki defoon lu bon ne moom def na ko am na bakkaaram waaye yow nga jël ko tasaare ko diviser ko partager ko fu ne ay junni junni junni su boobam nee na képp ku ko seetaan wala képp ku ko diglu bakkaar bam dana am bakkaaram moom ñu ko seetaan diglu ko waaye yow mi ko ko jox da nga am bakkaaram keneen ku ko seetaan nga am bakkaaram maanaam boo ko boo ko partagé woon ak junni nit da nga am junni bakkaar ak benn sa bos bopp bi ak junni yooyee nga xam ne ñoo ko seetaan wala ñu diglu yow bi partagé lu bon lool da ko am luñ gën a bari nag nga gën a bari mën nga ko partagé junni nit junni nit yooyu kenn ku ne partagé ko junni ni junni ya toll yow da nga am bakkaar yu toll noonu ak sa bos kon dañu war a partagé bu baax a baax a baax a baax bala yow bés suñu baaraam di partagé dara nañ ko xool bu baax a baax ndax bu xasee jàll rek moom jeex na ku ko seetaanati ku ko diglooti rek bakkaar bu mu ci am nga am ko yow sa bopp bakkaar bu mu ci am rek te te man te léegi jumtukaay xarañ nga xarañ koo xam ne mën na fee nekk ba adduna tukki wax jooju nga tasaare mën na fee nekk ngay am ay bakkaar ba adduna tukki nga faatu bu yàgg wocc ko say bakkaar xam ne yow faatu bu yàgg waaye yaa ngi fi wocc bakkaar yoo xam ne da lay fekk fa nga nekk waaw loolu lu lu lu mat xam la ñi nga xam ne toll nañ ci di yor ay jumtukaay yi tasaare jumtukaay boobu jumtukaay dong la baaxut bunut mën na lu ne mën naa def lu baax lu ne mën naa def lu bon lu ne waaye soo koy jëfandikoo ci leneen nag xamal ne lii moo la cay fekk du yomb la toog sa biirum ne rek di partage di partage di partage di partage soo noppee rek yow faatu nga bu yàgg say bakkaar nekk fi nag di di la fekk foog ne waaw li yaxmilu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaama wa min awsaari alladina yudilluuna bi gayri ilm yow yow mi leen ko jox dangay am bàkkaar dañuy am bàkkaar nga am bàkkaar kenn ku ko jotaat am bàkkaar nga yenu say bàkkaar yenu bàkkaar yi ñeneen ñeneen te loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko ci beneen hadis man daa ila huda kaana lahu min al ajri misla ujuri man tabi'ahu la yanqusu min ujurin shay'an wa man daa ila dalala kaana alayhi min al ismi misla athami man tabi'ahu la yanqusu dalika min athamihim shay'an yow mi yow mi woote lu baax ku la ca topp nga am ca yool bu toll ni ba mu ca am waaye yow mi woote lu bon ku la ca topp nga am ci bakkaar bu toll ni ba mu ca am ak bakkaaru keneen ku ko ku ko def waaw loolu la sëñ Tuubaa wax ca eh, Munawwir Sudur moom it maanaam ne jëw bu leen jàpp ne kii jëw rek moo am bakkaar wala tazunnu anna ismal ghaybati taku yaxtasu bil qaa'ili fil musibati ki jëw rek déedéet musiba mi yemut ci moom de inna alladi alxibata qad yastamiu mushariku lqaaili fi ma yasmau nee na yow mi déglu kii jow moom day am bakkaar yow mi déglu rek nga xam yow déglu képp nga ci moo la ci yow waxoo sax defoo dara da ngaa toog rek déglu waaye yéen a yam yéen ñaar bakkaar bu am da nga ko am bakkaar bu mu am da ko am moom ñaawteef yooyu nag am na ñaawteef yoo xam ne ay xalaat la fa waxi fikriya yoo xam ay xalaat la ñi am nañ xalaat yu bon yoo xam ne ñu ngi koy tasaare ci àdduna bi buñ ko yëgee ak buñ ko yëgut ay xalaat yu bon ay bidaa ay réer ay xalaat yu yu yu doy waar ah, yoo xam ne ñu koy tasaare ci ci àdduna bi am na ay xalaat yoo xam ne commerce la commerce nit ñi dañuy commerce ci xalaat yu bon xalaat yu bon sax dañu ci xal commerce jëf alal yu wat dañ ciy commerce danga fekk koo xam ne day ubbi ab télévision maa mu ubbi ab rajoom waaye lam ci jublu lépp mooy tasaare lu bon tasaare lu bon rek mën na ko muuree lu baax ci kaw gi nag nit ñi defe ne lu baax lay def day joxe xibaar day joxe nangam fekk la ko la ko lal lépp ci biir lu bon lay joxe mu joxee benn bu baax joxe fukk yu bon wala sax mi ngi joxe lu bon te ñi ngi koy jox dañ koy jël ndànk ndànk te duñ ko yëg dañ koy jël ndànk-ndànk médias yu baree bari yoo fi gis ci jamono bii boo ko xoolee rek ca biir boo ko seetantalee rek foofu la jëm lim lay won ci kaw gi ba nga topp ko da day lay da lay istidraaj di la jañ di la jañ ba nga topp ko ba dootoo ko mën a bàyyi nag muy sotti ci yow nag ay bon ba gis set muy sotti ci yow ay bon ba yoo xam ne doo ko yëg sax film yeeg nangam nangam film wax ne film tubaab yi sax moo gën suñu suñ film olof yi film tubaab yi ñuy seetaan moo gën ci gone yi film wolof yi ndax film tubaab yi dañuy seetaan image yi rek waaye film wolof yi dañuy xam li ñuy wax te lu bon la léegi nag boo demoon fii de dellu ubbi rajo bi léegi ñuy waaj a waaj a waaj dogu rek nga seetaan ay film wala nga gis ay ay ay ay ay tamsilaat yoo xam ne lépp ci màbb diine ak yàq diine ci la jëm te moom la ñuy dogalee ñun ci la ñuy dog bu ñuy dog moom la ñuy seetaan maanaam nga wor ba ngoor xiif mar yaakaar si ab yoonu yàlla ngay dog ñu tegal la lu yàq sa koor gépp te yëgoo yàq sa koor gépp te yëgoo te ay ci ay reetaan rek lañ koy def kat nga defee ay reetaan la fekk jubluwuñ ci reetaan mais tasaare lu bon rek lañ waaw ah. kon loolu lu mat a xam la lu mat a xam la maanaam ñiy tasaare lu bon kenn amut fitu ubbi sab tele wala ubbi sab rajo wala ubbi sab euh, euh, sit internet ne damay tasaare lu bon kenn du ko wax waaye looy def mooy da koy da ngay làqutoo dara ba mën koo def ngay làqutoo dara ba mën def yow ñu amut ay setantal te te léegi mooy li bari ndax li moom fu mu am rek fu mu am rek ishaatul faaxisha dafa yomb réer fu mu am rek siiwal lu bon dafa yomb ndax sunu sunu sunu jigéen ñi sunu gone yeeg nga xam ne jàngunu ku jàngut arabe jàngu français jàngu anglais jàngoo dara te yor appareil boo xam ne lu ne mën na ko mën ko ci seetaan mën ko ci dégg fooy xamee lu baax ak lu bon yow yow da ngay da jël rek dañuy xëpp di la jox rek ngay jël am na ñoo xam ne euh, appareil bii mënuñ cee xam lu dul luñ se luñ seetaan wala luñ déglu waaye mënuñ cee def dara ñoom ñoom mënuñ cee jàllale dara dañuy jël rek ciy jël waaw ñooñu nag la ñuy gën a jekk ñoom waaw danaa koy danaa koy wax ay ay ay ay ay gone yoo xam ne dama leen di gis dafa ne mënuñoo composé numéro téléphone waaye appareil bi ñuy yor lim man mën naa war adduna ak li ci biiram ci la ñuy fanaan bu guddee affaire boobu ci la ñuy fanaan bu mu nu mënuñoo liir benn làkk ci làkk yi oh, loolu danger bu rëy la boo xam ne ñun ñëpp war dañ cee def war dañ cee def attention léegi nag loolu lépp xam ñun ñëpp xam nañ ko parce que maanaam danger bi fi mu nekk mooy ñun dañuy dund dañuy dund lu bon te nun ko yëg kenn ku ne ci noonu yor na appareil bu baax waaye amul kenn ku mën a waat ne appareil bi nga yor bi nga xëyee ba ngoon seetaanoo ci loo ci war a seetaan wala digloo ci loo ci war a day mel ni sax idmaan la maanaam dañ cee mandi dañ cee mandi da ngay gis fii naafila gi bu ñëwee wala julli kuy julli ba yàgg mu ne kar mu ne nii xool nii waaye mu ne kar mu ne nii xool nga xam mënta muñ diirab li muy naafila appareil bi mu ko muñ diir bi muy naafila rek wala muy julli gee rek mënta muñ appareil ku ñëw ci jàkka sa ah, téléphone ne kar te doo wuyu loo koy indee ci jàkka ji wala loo koy sone su muy sone yow doo wuyu waaye dana yàq sam xel a seetaan ne demee noonu dana la man kat mënuma laa téye julli gi waaye danaa fexe ba sa julli gi doo ci am dara julli kese lay doon julli kese lay doon allazina an salatihim saahuun allazina yuraauna wa yamnuuna maun julli goo xam ne këpp këppal rek la xam nga julli mu sone ngay xool ku la woo xam nga moom teqali ko waa julli boobaa boobu moom nekkatu ngay xool ku la woo boo xoolee ku la woo ba noppi nag door a xalaat nag lu mu lay wooyee ca loola ngay nekk ba julli gi ak ci rek ba julli gi ak ci loolu ngay nekk te ñun ñëpp daf ñuy dal nga xam ne ji ko tax li tax a mooy ñun ñëpp te yëgunu ko ñun ñëpp danoo dal te yëgunu ko xanaa dañoo ëppante rek dafa ëppante rek waaye ñëpp la dal xanaa ñi yàlla musal nga xam ne ñoom dañuy ñoom du ñu am appareil am na ñoo xam ne du ñu am seen téléphone dañoo lànk am nit ñu am dogu ñoo xam ne moom dañoo lànk na doom du ñu am téléphone amuñu ay da ay lor nga ca waaye njëriñ a nga ca waaw ndax moom téléphone moom jëmmi téléphone bii moom baaxut bon moom li ciy baax dañ ko ciy def li ciy bon dañ ko ciy def waaw jumtukaay la rek boo xam ne paaka ñaari bon lu ne mën na ko waaw kon yaatu dim yaatu moo tax mu am ay jeexit nag alal fard wal mujtama daa am ay jeexit yu yu muy bàyyee tasaare tasaare lu bon nit bu ko defee ba noppi nag defe ne deful dara fekk booba bàyyi nag ay jeexit yu rëy rëy ci nit ñi jeexit ba ba ca jëkk mooy xotti ormay nit ñi te ñëpp yëg nañ ne kenn amatul orma xotti ormay nit ñi kenn amatul orma kenn amatul honneur bis bu set rek mën nañoo yàq sa honneur ci lu tuutee tuutee tuuti loo xam ne benn bouton rek ngay bés muy tasaaru ci àdduna dëpp yàq nit. yaxeet ba duutu am njëriñ te te honneur mooy lépp ab der mooy lépp nit nit ki ab deram maanaam foor gum foor moo tax suñu borom tabaraka wa taala daf koo fooral ba boole ko ci li tax lislaam jóg lislaam li ko tax a jóg mu di ko aar muy maxaasidu char maxaasidu char yi yi lislaam di aar nga xam ne moom moo ko lay moom wattu ko moo ko tax a jóg da caa bokk ab der nit ki ab daram dañ ko koy wattul bu ko kenn laal bu ko kenn ñaawal ci lu dul dëgg kenn du ko laal kenn ku ñaawal ci lu dul dëgg moo tax suñu borom àgg ca ba ki ko def yàq dërëb jigéen wala mu yàq dërëb góor tuumaal ko loo xam ne du dëgg ah te amu ci ay seere yu leer suñu borom ne nañ ko dóor juróom-ñetti fukki yar waaw ay bu ma waxoon lekk nañ ko dóor juróom-ñetti fukki yar yëmu ca sax waaye daf ne ki aar ab deram ba faatu ci waaw ki aar ab deram ba faatu ci shahid lañ koy jàppee maanaam ko dee ci yoon yàlla boo dee aar sa der ba faatu ci boo fabee sa alal nit danaa fab alal jox ko nit koo xam ne bañ mu yàq ab deram lay doon sàmm ab deram tax mu nit koo xam ne am na li ñoo xam ne li ñuy dundee du dara lu may nit ñi dañ leen di jox ngir sàmm seen làmmiñ noppiloo leen nit koo xam ne da ñaawu làmmiñ da ngay tasaare lu ba ku lay jox da lay jox ngir nga noppi ci moom am na am na ñu ni mel ñu naan diw sàngam moom du ko wax dara ndax la koy jox dara waaye ka ko waxul dara ka ko ka dara moom mu yox ci moom lu ko neex mu yox ci moom lu ko neex te loolu yonent bi sallallahu alayhi moo ko waxal boppam nee na li nit fegee ab deram sa der li koy yàq nga fab sa alal def ko ca nee na loolu sarax la la ko yàlla jàppeel ab sarax la maa waqaa bi il marhu ardahu kutiba lahu sadaq kutiba lahu sadaq li nga li nga aaree sa det joxe ko te dara taxut nga joxe ko yàlla taxut sax dara taxut waaye li tax nga def ko nag mooy nga aar sa der bii ba kii du yàq sa der ndax yàqkatu der la nga jox ko alal ngir aar sa der nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na loola sarax la yàlla dana ci fay ab yoon yàlla dana ci ab yoon kon bi ci njëkk ci jeexit yi mooy yàq deri nit ñi yàq deri nit ñi laal seen karaama laal seen mu wuññi seen sutura ñun ñëpp gis nañ loolu ne adduna bi yomb na fi lool léegi bis bu sar rek nga dégg ci loo xam ne doo ko mën a doo mën a xam lu mu doon ba ca des mooy tasaare bon day tax nit ñi duutuñ faale lu bon tasaare lu bon jeexit ji muy am ci société bi société bi day dem ba mujj lu bon duutu nekk lu am solo ci ñoom bu yëggu too njaay rek am na baat yoo xam ne ñun ñëpp dañuy toog ci suñuy saal toog ci suñu kër nekk ak sunuy doom ak sunuy soxna di ko waxtaanee ku ko masaan wax da ngay maanaam gone yi dañuy jóg daw baat ay baat yoo xam ne rek mi ngi tasaaroo ci suñu biir ñun ñëpp ñu di ko waxtaanee waaye jamono yu néew ci gannaaw rek kenn ñi mu koon a tudd ci wala bi kenn tudd foo ko masaan tudd rek dañaan ah ñëpp dañuy xoolaat xam ne yow mii doo nit ku yiw ndax yii baat ku koy tudd doo nit ku yiw waaye baat yooyu léegi ñun ñëpp koy tudd ñëpp ci la fanaan ci la ñuy yam di ko diglu mu yof woyof ci nun lool wa tahsabunahu wa huwa inda lu ngeen jàppee lu woyof te màgg fa yàlla lool ay baat ay baat rek waaw istalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluuna bi afwaikum waaw ngeen di wax waxan waxantu ci seen làmmiñ di wax ci seen làmmiñ di di diglu ci seen seen seen i nopp loo xam ne da di jàpp na du dara te lu màgg fa yàlla la te lu màgg fa yàlla man maanaam lu lu lu grave ngi noonu maanaam li ñu ad maanaam li ñuy wax dir olu xayaa al ijtimaa yi maanaam li doon aar mbooloo mi ci ñu diglu lu bon di leen aar nga xëy bu ñu ko déggee sax dañuy xaw a gêné wu waaw dañuy xaw a wu tuuti léegi kenn gêné wu ci déglu lu bon lu bon léegi baat yu bon yooyu baat yu bon yooyu kenn gêné wu ci dañ koy wax mel ni waxuñu dara mel ni waxuñu dara te loolu ci ci jëpp la danaa ci occasion nag ci ci ci suñu dëkk bii wala suñu réew mii suñu dëkk bii dangay toog diggante deux heures ak trois heures ci rajo yi waxuma la sax ñooy wax lu bon nga xam ne ñoom xam nañ leen waaye ngay déglu suñu rajo yii ay nit nekk ci ñoo xam ne dañuy ñi ngi tuubaa ñoom waaw fi lañ dëkk am nañ ci kër joxe seen adresse joxe seen lépp ñuy wax ay wax yoo xam ne boo fa sa doom nekkee da koy tëj nee ay jabar lañ dañoo mën dara dañoo am lu man waaye la ñuy faj nañ koy waxee da ngay rus ci wax ji ba boo toogee ak say doom da koy da koy tëj wallahi la kenn ku nekk rek da ngay diglu loolu doo xam ni lu mu doon ni musiba musiba moo xam ne ñun ñëpp bis bu set deux heures trois heures quatre heures di ñu rajo yi nga xam amatuñ lu ñu wax amatuñ xabaar amatuñ dara ñooñu rek ñoo koy fees dal wax yu ñaawa ñaawa ñaaw yoo xam ne kenn mënu ko dégg kenn mënu ko dégg saayire li ñuy wax saayire wax ju saayire man nun fii ci murit wax wax wax yi xawoon a xawoon a jekk sax dañ koo mu murid dafa am waxin dafa am waxin teggin waaw waaye ñu dem ba nga xam ne yi xawoon a yi xawoon a teggin sax dañ koo dañ koo weesu tey saa yi yëpp di ko diglu di ko wax dañu ko wax nee nañ dañuy faj nee nañ ay sëriñ sëriñ lañ ay sëriñ lañ tudde sam xanaa bi sëriñ sax xamu lu ñu ko war a tuddee léegi ndax ñooñu ñoom du ñu sëriñ ay jabar lañ leen di war a waaye du ñu sëriñ wax ju ñaaw yoo xam ne xaw ma ku ci man dara dey waar nga war na ci sàkk ndax ñaaw na trop daanaka li ñuy wax li ñuy wax ñi joué ay film yoo xam ne di di film film yu bon yooyu ñuy joué di lu bon ak waaye ñun ñu ngi ay film yi wax fii ci sunu dëkk wala ci sunu réew film li ñi koy wax li ñuy wax buñ ko doon wane adduna tukki waaye wax ci ak ak ak jëf ji ñooy képp te ñëpp koy seetaan bàyyi ko mel ni du dara wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda llaahi aziim lu yomb la rek te màgg fa yàlla lool waaw te jëf ju wax ju bon moom waxuma sax ki koy tasaare waaye yow mi ko def sax yàlla def na la sutural yow mi def lu bon yàlla def na la suturalal sa bopp beru nga ci sa barab def nga fasalu bat ma suuturaal la wunuma ko kenn waaye nga xëy di ko waxtaanee yow léegi loolu nit ñi noonu la ñuy def léegi li ma def bii nanga ma ci nangam ak fi ma jaar nanga ma ci nangam ñu di ko waxtaanee ñoom li ñu def ci lu bon waxuma ne li keneen def waaye li ñu def ci lu bon moom dañ dañ koy waxtaanee def ci lu bon dañ koy waxtaanee loolu moo gën a garaaw waaye beneen bi ci des mooy tasaare lu bon bu demee ba tasaaroo ci mbooloo mi li mu leen di indil mooy daf leen di indil ay musiba ay feebar ay feebar ay bekkoor ay balaa ay balaa defe naa yéen ñëpp seetlu ngeen jamono yu mu ji xaw ma day ya jëkk waaye jamono yi mu jiyee at mii ak at mi ci taw Sénégal am na fi jànkoonte na fekk ay balaa ak i musiba loo xam ne soo ko comparé yi ngay dégg ak yi ngay gis da ngay xam ne du kiimaan du kiimaan ci loolu am zahara alfasadu fi lbarri walbahri bima kasabat aydi nnaas kenn teguñu ko ñoo ko teg suñu bopp bu ko defee ñuy wuti ay xulul ak solution fu ne te fekk yow yaa war ci li la dal yaa ci war yaa ci toog accident yeeg lakk yeeg nangama ki nangama ki nangama ki nangam yëpp choléra beeg ak euh, euh, corona beeg feebar yooyu yëpp yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon nañu ko bu yàgg yàgg yàgg yàgg nee na saa lu bon siiwee ci seen biir ba tasaaroo danaa wàcce loo xam ne mosu leen koo gis ci seen imaam addis la lam tashar alfaxishatu fi qawmin xata yuminu biha lu ñaaw saa bu saa bu lu ñaaw da bon na yàlla ba bañ na ko waaye nee saa bu tasaarooyee seenu leen lu ne du ma leen def la ma defoon nit ñu njëkk ñi de yàlla moom nit ñu njëkk ñi mu ko ci masaan def yu mel noonu yàlla day wëlbati ko suuf si wëlbati suuf si ba mu tawal leen ay xal ba mu sonn leen ay doj yàlla moom yërëm na yonent bi sa waa këram euh, yonent bi sa ba dootu leen def loolu waaye nag du tee yàlla nag dese na lu bari corona baa ngi fi corona baa ngi fi sida baa ngi fi accident yaa ngi fi lakk yaa ngi fi yépp nag ci biir te dara war na ko lu ma lu may bi maa kasabat ay dinaas nit ñi ñoo ko defal seen bopp kuy xëy di diglu lu bon di seetaan lu ba ngoon nga defee ne da nga fanaanoo boo ko fanaanoo yàlla da laa waaye waroo ko fanaan waxoon naa ko de yàlla daf laa yërëm keroog daf la ajuma wala barki dem démb kon loolu addis addis boobu bu ñuy faral di waxtaanee la maanaam yonent bi daf ci lim juróomi mbir yoo xam ne nee na saa bu ñu demee ci jamono ba mu am rek séenu leen lu ne lu ñëw rek bu leen bett ba ca njëkk nag mooy siiwal lu bon lu bon feeñ fés ba kenn tëggatu ko dara mais saa bu loolu amee rek lu ne rek seen mbir ay feebar sax la wax ak i balaa ak i nattu te ñëpp gis nañ loolu waaye saa bu loolu amee ñu ne nag bu dee bu dee accident ñu ne safoor ya bu dee lakk ga ñu ne waa marché ba bu dee nag duñ delluwaat ci asbaab raisiya sabab yu dëgg dëgg dëgg ci suñu bopp la nun nun la sabab yu dëgg dëgg ci suñu bopp lay delluwaat te yàlla dafa bari yërmande ndax loolu lu tax mu di ko def mooy dafa bëgg rek ñu del siwaat waaw li yuziqahum baad alladi amilu laallahum yarjaun ne dama leen di mosal ci li ngeen di def rek lu bon li ngeen di def ma mosal leen ci tuuti ci ay balaa ngir ngeen daw del siwaat ci man ba ma yërëm ne ne yooyu xew ay yërmande yàlla la sax ndax waaye nag xam doon yërmande yàlla mooy mu mu mu xëcc nu delloowaat ñu ci yàlla waaye bu fekkee dañ cay continue nag lay yiw moom kenn du xam lu muy doon lay yiw kenn du xam lu muy doon léegi nag loolu mooy sa ca wax lu baree baree baree baree bari ishaatul fahisha ak bon gi bon ak li muy loree nit yi ak li muy indi loolu rek doyoon na sëkk mën a xat-xati jamono jii rek xat-xati jamono jii dund gu cher geeg nangam nangam ak karang karang ak lépp ñu di ko soow di ko jiiñ ku ne am ñu ca am sabab am nañu ca am sabab waaye sabab bu bi nag mi ngi dellu ci nit ñi nit ñi wàcc guñ wàcc yoonu yàlla te yàlla ne ku wàcc sama yoon yu ma teg la fii man man yoon yu ma teg xotti ku ko wàcc danaa la teg lii ñu wàcc ko ba noppi nag yàlla dañu ko teg ñu di ko jiñ ku ne su fekk na dellusiwuñ ci suñu bopp il faut ñu dellusiwaat suñu bopp léegi nag booy wax dellusiwaat sa bopp day mel ni ay caaxaan ndax day mel ni nit ñi mënatuñ ko fii maam maam mun nañ ba ma àgg foo xam ne continuer rek lañ ma wéy rek wéy rek léegi nag lu koy faj luy wàññi loolu si ci tasaare googu ñuy tasaare lu bon lan moo koy wàññi lan moo koy wàññi bam bam buñ ko mënta bàyyi mu wàññi ko lool la koy wàññi ci ñi koy def laay wax de ñi koy def mooy ñu teewlu li yàlla tëkkoo ñiy tasaare lu bon foo tollul nga di ko jàngal sa bopp wala nga di ko diglu ñu di ko waxtaanee ñiy tasaare lu bon li leen yàlla dig mu rawwiju al fawaaxish di koy tasaare di ko diviser di ko partager ñu koy def yàlla li leen dikk mooy lahum azabun alimun fi dunya wal axira fi dunya wal wal axira kon saa booy saa booy teewlu eh, nusuus yooyu texte yooyu ñëw sunu borom tabaraka wa taala di ci wax ñii siiwal lu bon ci aaya yu baree baree baree bare lam leen dikk ci àdduna ak lam leen dig ci alaxira kon da nga wattandiku siiwal lu bon boo ko mu tuddi nit yow doo ci bokk ndax ki koy wax ak ki koy siiwal ni ma ko waxee woon rek benn la al yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne al qaa'ilu lil faahisha walladi yashii'u biha fil ismi sawa nee na wax lu bon akki koy siiwal bakkaar bi jóg ci am moom sax am na sax koo xam ne sax mën naa ëppale ndax kii wax lu bon moom bu yemee ci boppam moom benn bakkaaram rek la jël waaye yow bu koy siiwal nag bakkaar yi ku ko dégg da nga ko jëlaale yow da ko jëlaale bokk na ci li koy fajit maanaam nga ngay seetlu mujjub ñi méccewoo loolu ñi méccewoo tasaare lu bon wax ju bon ak jëf ju bon ñu ko méccewoo ba wutal ko ay jumtukaay yu ñu koy tasaaree sax par ay télé ak ay rajo ak ay film ak ay nangam ak nangam ñu am ko mën nañu tudd artistes yi lu ëpp ci artistes yi ñuy woy ak ñiy fecc ak ñiy euh, def théâtre ak ba ci sportif yi sport yépp ñeen ñu nekk ñu ngi tasaare lu bon di ko làqoo lu baax yéen ñi nga xam ne yoonu itteel na leen gis ngeen bërki démb wala ci weer yi jàll rek ay ay ay ay ay ñi ñoo xam ne football dong la ñuy def waaye ndekete football ba dugal nañ ca loo xam ne dañ naan na danga nga sol mbubu sàngam moo xam ne ñu bon ñi ñoo koy sol ñu bon ñi ñoo koy sol da nga sol mbubu moomu ngir wone ko kon yow yaa ngi tasaare lu bon football dong yaa ngi koy def defe ne da ngay dóoru bal rek fekk yaa ngi tasaare lu bon te ñu nga xam ne ba ci sport ba dugal nañ la ñi yàlla dimbali na nga xam ne ñoom am nañu gëm wala des nañ dara dañuy lànk loolu duñ ko nangu waaye ñi ëpp moom dañ koy nangu ndax jàpp nañu dara waaw journaliste yaag borom euh, rajo yaag ñëpp léegi gis nga gis nga site yi ni baree gis nga télé rajo yi ni mu baree waaye xam nga ne loolu wóor na leen ne ci alal ju toll noonu ji ju waaye dafa am ñu ne ci seen gannaaw deen tasaare loolu bon waaye nag nañ nuuroo lu baax nag waaw ah, bu koor gi dikkee ñu wut ay oustaz ñuy waaraatee nangam ak nangam bu waaraate bi jeexee ci saasa ñu teg benn émission boo xam ne lañ ma bopp lañ defoon lépp da koy màbbat maanaam fii kii waaraate rek ñu dal fi teg benn boo xam ne lim defoon lépp dañ koy màbbat te duñ ko wax waaye dañ koy jëf dañu waxoon lépp waaw ah. kon siiwal lu bon du rek nit ki day wax ne man damay siiwal lu bon loolu bëri waaye day bari ñu ko làmboo ñu mbuboo lu baax te la leen tax a jóg mooy siiwal lu bon moo leen tax a jóg waaw waaye benn bi ci des mooy ñu mën a bo ngir nga xam bon gum bon ba nga mën ko wattandiku xoolal rek yow xoolal seetlul rek ñi nga xam ne loolu mooy seen liggéey nag noo yàlla baal barab bi yaayowut loolu ay fecc katak wala ay woy katak wala ay eh, ñuy def théâtre ak wala ñuy nangam te nga xam ne loolu yooyu de waxuma ne yëpp a bon waaye am na ay nit yu koy làmboo lu koy yu koy yu koy koy tuddoo ngir mën a tasaare seen lu bon waaye xoolal seenu mujj ñoom ñooyu seetlu ko rek xoolal seenu mujj barki démb rek damaa xoolaan ci télévision bi koo xam ne ku siiwoon la ci yooyu ci riyaada sport ci ku siiwoon la mu dem ba ba jeexal te jigéen la mu mu mel ni faatu na sax def naa ne waaw maanaam mu muy jàmbat sàggane buñ ko sàggane amatul lu mu fajoo mi ngi mi ngi tawat te amul lu mu fajoo ñam bokkaloon mu ci ma bi nga xam ne moo moo moo ko doon taxaw day taxawutu kenn taxawutu mu jaaxle lool te li ëpp loolu lu baree bari lay kaw ñu ne loolu boo seetee seen mujj dañuy am alal ju bari am ay bien am lu ne waaye boo nee ba ci seen mujj rek da ngay gis amatuñ dara ñu yàqule dañuy dañuy dañuy yàqule man alal ju bari ja boo ko xoolee léeg-léeg nga si ñoo xam ne bu ñu ne nangam la ñuy fayu par weer wala nangam la ñuy fayu par genn guddi nangam lañ ciy am muy alal ju bari waaye boo xoolee seenu mujj buñ guddee fan danga nga dégg ci ñoom loo xam ne da nga naan kii xanaa du du du ko doon wax ngeen mujj ñaaw rek ngeen mujj ñaaw rek tepp waaw beneen bi ci des bi ci mujj mooy yow mi koy def nga seetlu nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga xool nattale résultat yi ci génnee ci yàq ay jikko ak ay diine yow nga bokk ci Sénégal di ab sénégalais wala sax dëgg moo mën a dëkk ngay tasaare katu lu bon ci wasaayil yu mën a doon nga di ko tasaare ba ba xool société bi nga dëkk gis na lépp yàqu na gone yépp yàqu nañ ci foog ci tëgg ci woy ci nangam ci nangam ci nangam ci nangam ak yàqu ba amatuñu njëriñ amatuñu njëriñ seen bopp amatuñu njëriñ seen société ñun ñëpp ñu yàqu yow ngay xoolaan loolu nag te gis ne lii kat yow sa loxo ngi ci lii lii lii xew nii nga di ko seetaan sa loxo ngi ci te booba mënatu ci dara ndax jeexal nga kat kàttan jeex na sa lépp jeex na waaye nag li yàqu nag lépp wër la nag nga gis ni mel nga xam ne yow ci nga bokk ñi ko def ci nga bokk bu ko defee li nga yëg nag li ñuy wax oqdatu zam sa sa sa sa conscience daf lay yedd sa conscience daf lay yedd saa boo tëddee doo nelaw ndax xam ne lu bon lii am man ci laa bokk lu bon lii tasaaroo ba gone yi mel nii man nii ci laa def naa ci nangam def naa ci nangam def naa ci nangam te mu wér la lool ko dindi waaw mën naa am sax ngay tuub waaye fa ngay tuubee day mel ni tuub dafa weesu donte ne tuub dana yeex lool ñu bañ ko nangul nit ki waaye am na loo xam ne boo ko dee def ci lu bon dem ba mënatoo ko nga ne tuub naa tuuboo al aana waqad asayta qablu wa ko minal mufsidin firaw na ba mu demee ba dara des ci lu mu ne léegi gëm naa yàlla na ko déedéet gëm amatul yàq nga yàq ba noppi waaye am na ñoo xamante ne li ñu yàq tànk yàq mi nga am te mënuñ koo dindeeti nag dan dañuy faatu wala buñ faatu te ñi ngi dund waaye mënatuñ koo dindi te yàq gi mi ngi buñ ko tuubee it bàkkaar ya cay am moom da leen di fekk fañ ñàkk kon ku ku xalaat loolu ne lu mel noonu mën na laa dal boo noppee waaw gis nga ñu bëree bari ci ñoom ci ñiy tasaare lu bon da ngay gis bu ñu demee ba màggat wala ñu xaw a kii ñu naan dañuy tabax yi jàkka ak dañuy dimbale nangam nangam dañuy dimbale nii na ma man alal ju araam mënoo cee def lu baax mënta nekk mënoo am alal ju araam tabax ci jàkk ba yàlla fay la ca yoon mënoo ko saraxe ba yàlla fay la ca yoon jàkk ja nag ñi cay jullee mën na caa julli ka nga sarax mën naa lekk waaye yow doo dara yow mi ko xam yaa ju araam kenn muy cee def lu léegi nag looloo siiw te li ko tax a siiw nag mooy ñi ñu koy jox it lekk dañ leen di réyal gis koo xam ne alal jëm yor dara baaxu ci ñëpp xam nañu kii alal ji jëm yor baaxut mu di ko joxe ñu naan diw dafa tabee diw nangam nangam diw dafa lii baaxal ko lool te la ñu def lépp dafa bon yor lépp dafa arab waaye lu mu joxe rek bu joxe alal rek ñu ne ah kii de ku baax la waaw wala ñu ne taalube la wala ñu ne jullit la nangam nangam yooyu ñuy wax waaw gis nga loolu kon yu mat di xalaat la ku koy xalaat di teewlu liñ ci wax ci yi ca la tëkku nit ñi di teewlu mujj gi mujj gu ñaaw gi nga xam ne moo leen di jot di teewlu bon gi am tey tasaaroo te yow nga yëg ni ci nga bokk te mënoo koo faj yooyu yëpp ku koy seetlu dana la wattandiku loo tasaare lu bon loo ca doon def da ko wattandiku loo ca doon wax da ko wattandiku kon mbokk yi lii mooy ishaatul fahisha tasaare lu bon xam nañ ko xam nañ ab atteem xam nañ lor ji nga xam ne mën na koo lor nit ñi ak mbooloo mi yépp kon nañ ko wattandiku bu baax a baax ndax ju mucc ci ay ayam ci àdduna alaxira ndax kat ab jullit du ko ne may julli rek waaye al muslim man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yadihi yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ab jullit dëgg dëgg dëgg dëgg du koy julli rek di sëlbal waaye ab jullit mooy koo xam ne nit ñi mucc nañ ci saw làmmiñ mucc nañ ci sab loxo al muslimu man salima al muslimuuna min lisaanihi wa yadihi wal muhaajiru man haajara maa nahaa llaahu anhu ab gàddaay kat dëgg dëgg dëgg dëgg mooy ki gàddaay li naqari yàlla bàyyi li naqari yàlla neen kooku mooy ab gàddaay dëgg dëgg asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu